waaw tout à fait ñu bëri gisuñu ci seen bopp parce que dañ doon xaar euh, président de la république mun nañu day def discours à la nation mais ki nga xamante ni moo jàkkaarloo woon ak askan wi di wax ak moom du président de la république man dama jàpp ne président Benno Bokk Yaakaar la li koy gën a wone mooy couleur yi nga xamante ne nii mu ngi ci ginnaaw di ay couleuru partem

ñi nga xamante ne nii seq nañu ak moom langue politique bi di opposants yi mu leen di dànkaafu ak di menacer loolu la ñu gis maanaam mooy la xewoon assemblée euh, nationale te sénégalais yi jàpp ne li ci gën a fës nekkul euh, jàppante ba nga xamante ni am na fa nekkul yéeg ci kaw taabal yi nga xamante ni am na fa la sénégalais yi gën a jàpp mooy ay nit ñëw nañu ne dañoo bëgg a nekk seen ndaw dañ leen a bëgg a teewal assemblée nationale sénégalais yooyu fal leen ñooñu nangu président de la république def leen ni ay xar jàpp dugal ci ab bus yóbbu leen euh, Saly denc leen foofu pendant quarante huit heures indiwaat leen dugal leen ci benn bus ñu ñëw assemblée nationale vote ki nga xamante nii ba ñuy ñëw sax xamuñu woon ne moom la ñu war a voté maanaam amul kenn ci ci ñoom koo xamante ni waxtaan na ak ñoom ne leen kii laa bëgg a fal donc gis. Euh, loo xamante ni assemblée nationale wane na ne véritablement démocratie amu fi donc bu ñu ëlbatikoo loolu jur leneen ak leneen président de la république ñëw ne day def discours à la nation ñëw am nu mu waxee maanaam nekkul euh, président tiim ñëpp nekk au de delà euh, au dessus des considération politique maanaam wane ne moom président sénégalais yi lépp yëpp la ñi nga xamante ni ànd nañu ak moom ak ñi nga xamante ni ànduñu ak moom donc discours boobu teniru ko fa dañoo gis tout simplement que dafa ñëw dankaafu ñi nga xamante ni ànduñu ak moom dankaafu opposition bi wax di wax comme lam doon wax mois de mars deux mille vingt et maanaam li nga xamante ni amoon na fi dootu fi amati moom en tant que garant des institutions dina si jóg te loolu su ko président euh, euh, Macky Sall waxee rek xamal ne fi ñu jëm moom la confrontation du non xam nga xam nga loolu prérogative euh, euh, parce que l'Assemblée nationale le président bu le pouvoir de ay nommer à tous les postes militaires et civils c'est parce que la constitution bi moo ko La constitution boobu nga xamante ni moom pas permis de ba muy jël service lu mu pas mooy constitution bi dina respecter constitution bi dina fexé ba sénégalais respecté ko donc mom amul luko constitution bi mayul té constitution bi mayu ko mu dem né day dissoudre assemblée nationale té assemblée nationale bobu defu fi 2 ans li nga xamante ni kay mën nañ ko xaar euh, te jàpp naa ne euh, euh, jëfu régime bi lay don moy non pas dissoudre assemblée nationale mais dougal fofu ay gendarme yo xamante ni dinañu très ñen député comme ce qui s'est passé la dernière fois ñu am yenn euh, position yo yenn yo ko taxaw assemblée nationale que bu président yëkëté gendarmerie indi ko fofu pour ñu def lolu ma mais jappuma né mën na yegg ci euh, assemblée nationale bu la kay day yom opposition bi tamit dañuy jog rek tout simplement mom dañ koy destituer puisque askan tout simplement Macky Sall il n'est pas mieux élu que les députés députés dem askan campagne ñu teg ay euh, nu mu tudd ay bureau de vote ñu dem voter ñi nga xamante ni ñoo leen doy comme ni ñu voter le président de la république donc moom bu ëlbatikoon na dafa bëgg a dissoudre li wax euh, nu mu tuddati ay wax loo xamante ni rek xëy na ñenn ñi ñoo koy xalaat sax mais man jàpp ma ne mu ngi ci boppam. waaw xam nga euh, déjà coalition yi nu ñu leen constituer bokkul xam nga coalition bu mel ni Benno Bokk Yaakaar kenn mooy buum kenn mooy buum mi muy Macky Sall parce que jàpp nañu ne. ña bokk ca coalition ba ña fa am ay postes yëpp moom moo leen fal donc bu leen waxee xoolee leen fii ñoom foofu la ñuy xoole te ni ñuy ñëwee assemblée nationale la dernière fois ak ñu ñu voté wone na ko loolu nag bokkul ak coalition Yewwi Askan Wi nga xamante ni ay parti politique yu bëri ñoo daje te amul kenn koo xamante ni nekk na ci bopp bi ku leen mën a wax jaar leen fii ñu jaar fii li nga xamante ni moo mën a nekk mooy ñu waxtaan déggoo ci ay kaddu seulement nag am na benn piège boo xamante ni coalition Yewwi Askan woowu waruñu ci dem parce que bu ñu demee ba benn instant ñenn ñi di naan politiciens yëpp ñoo yem c'est parce que lii ñuy wax ni moo koy tax dañuy dem ba benn instant ñu jàpp ne kat opposants yi ñoom ak waa pouvoir bi lenn moo leen yitteel mooy ami post parce que man jàpp naa ne c'est normal ñoom entre ñoom ñu discuter xëy na sax ñu werante pour mën a wax ni kii mooy nekk fii kii mooy nekk fële mais loolu nañ ko def avant ñuy ñëw assemblée nationale pour man dès l'instant que ñu ñëw assemblée nationale rek war nañu au préalable ñu discuter ba déggoo ci ay kàddu yoo xamante ni bu ñu ñëwee ba assemblée nationale loolu la ñuy dawal mais bu ñu ñëwee ba assemblée nationale ñu naan kii mooy jël commission bi kooku ne noon kenn ne noonoo kooku du ko jël man maa koy jël donc loolu tout ça euh, day bokk ci euh, xeetu politicien boo xamante ni sénégalais yi dañ ko euh, dëddu te wane nañ euh, tout ce temps là que bëgguñu politiciens yi di wane ne nu mu ti seen intérêt personnel kese ñoo leen yitteel te bu ñu toogee kii naan maay jël commission bi kii naan maay jël commission bële loolu lay gën a niróol. Euh, tout à fait euh, débat boo xamante ni suscité woon nañ ko effectivement bi ñuy pré bi ñuy préparer élection président assemblée nationale parce que candidature bu mel ne bu amee ay dara ñu bëri comprendre ruñ ko bu ñu jàppee ne ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk au pouvoir ñoom doon nañu benn say. ne ñoom ñooy xàccandoo ñoom ñooy doorandoo mais li ñuy xaar ci opposition bi mooy que ñoom tamit ñu àndandoo doon benn di xàccandoo di doorandoo mais bu ñu gisee kii taxawee fële ne candidat la kële taxawee fële kan ne candidat la alors que yéen leer na leen ne ñi leen ngeen jàkkaar ñoo leen ëpp ñoo leen ëpp doole ñoo ëpp nombre man pour man sax ñi nga xamante ni ñoo waroon a gën a booloo doon benn mooy opposition bi ñuy xalaat

koy jàppale mais pas que ñu dem Ahmed Aïdara jaar ni Barthélemy euh, euh, euh, Dias jaar na le waaw xam nga Amadou Ba man li may wax particularité gouvernement bi mooy dafa bëri ñoo xam ne dañuy traîner ay casserole à commencer par le premier ministre Amadou Ba parce que rapport Cour de comptes bu 2014 mu ngi wax ci ay suufu Bambilor yu mu jaayoon te tegu ko ci lu leer donc nga jóge ci kooku nga mën a lim yeneen ak yeneen ministre yoo xamante ni tey bu nekkul cour de comptes nekkul IGE of nag am na lu mu leen di toppee donc ñooñu le président Macky Sall dajale def leen ab gouvernement ñoom ñu tuddee seen bopp gouvernement de combat ma ne jarul woon sax ngeen koy wax parce que sénégalais yi bu ñu leen gisee nii ngeen constitué li ñuy gën a xalaat mooy gang mais pas gouvernement parce que boo boolee ñoo xamante ni ay jëfin yu ñaaw moo tax xëy na sax ñu yegg fa ñu yegg parce que bu ñu fàtte ne Cheikh Oumar Anne bi muy nekk directeur la ko euh, la ko OFNAC épinglé wax ne am na foo xamante ni dugal na fa xaalis te waru koo foonu dugal ñu nekkat kii waratu la jege sax xaalisu askan wi donc bu nekkee kooku ba muy nekk DG la def loolu ñu waxal ko loolu temps yi may nekk DG président de la république tànkam lu loolu daal di koy def ministre dañuy jàpp tout simplement que Macky Sall profil yi mu bëgg mooy ñoo xamante ni ay defkatu tooxi duuna lañ parce que japp na ne xeyna na ñooñu ñoo mën def ak euh, opposition bi ñu jom ñu japp ñu bëri ci ñom bok japp ne c'est une opposition violente motax mané li ni moy le dernier élément du dispositif de Macky Sall bu ñu jógee ci élection mars yi néwon na li fi amoon dootu fi amaat ñu gis mu changer police ka ko jiite ñu gis mu changé gendarmerie ka ko jiite ñu gis ay loi yu bees yoo xamante ni dugal na ko ci affaire terrorisme gis gis gis yeneen donc bu ñu demee ba fi mu ne nii ñu naan 16 mois ak 17 mois mo dess ci élection présidentielle yi di ñëw mu monte équipe bo xamanteni ne ay xullookat ak i xeexkat ñoo ci ëpp dañuy japp tout simplement que ne rek li mo nek dernier dispositif am balaa mu ñu dugg ci dernière dernière ligne droite bi nga xamanteni ni ñuy mëne à la présidentielle de 2024. non mooy création la rek création bo xamanteni ni amul bop amul genn parce que ministre auprès de ministre lolu man yaakaaroon naa ne sax <clears throat> ñom xam nga xam nga. Euh, euh, euh, Idriss Seck doon na wax ne Macky Sall a tous les défauts de Wade mais aucune de ses qualités parce que yow à un moment donné sax man dama jàpp ne xëy na mën na nekk ñàkk xam mën na nekk nu mu tudd njuumtànge tax ba ñu wax loolu mais de l'instant que suscité na benn tollé sénégalais yi naan lii moom ça n'existe nulle part kenn gisu ko pour man waroon nañu am humilité wu revenir en arrière corriger loolu même si nous ciy délégué nous dugal ci ministre délégué auprès de mais un ministre bu nekk auprès d'un autre ministre l'eau ça n'existe nulle part mais nag ay création moom euh, nu mu tuddati Nous avons lu fi bees ay liste suppléant yu àndut ak titulaire Créer ñu fi ay liste titulaire yu àndut top suppléant donc bu ñu ñëwaatee ñu créer nous ñu bu bees tout simplement dégâts yi nga xamante le président Macky Sall nar na koo bàyyi ci administration bi avant 12 ans yi parce que lii nii dina bokk ci jurisprudence boo xamante ni suba ak gannaaw suba mën na créer dégâts yoo xamante ci administration bi kenn du xam parce que le ministre auprès kooku ban euh, prérogative la am kooku fan la sañ-sañam commencé fan la sañ-sañam loolu yëpp kenn mënu ko xam parce que ministre délégué la nit ñi xamoon jàpp ne kat ki nga xamante ni moo ko tiim moo euh, mooy patron xëy na am na yoo xamante nii ci moom lay jaar mais ministre ministre au auprès de loolu création la boo xamante ni amul bopp amul genn te jàpp naa ne euh, lu ñu war a corriger la pour la bonne marche de l'administration waaw non xam nga euh, euh, président soo seetloo gouvernement bi sax y'a ce qu'on appelle partage du gâteau parce que quelque part soo comprendre li tax ma Matar Ba génn ci gouvernement bi man dama jàpp ne Macky Sall ma waroon a jox ay alliés am parti bu mel ni réew mi ab post ministre xamul ban poste la leen di jox mu nekkat xaaral ma dindi Matar Ba mi nga xamante ni moom si kër gi la bokk du am problème daal di koy jox allié yi est comme ça que ça s' est léegi bu nekkee ne ñoom ci logique partage des gâteaux la ñu nekk mais AFP mënul nekk <laughs> en reste donc bu ñu demee bay séddale AFP day am wàllam te bu ñu nee AFP ne Moustapha Niass moo tax président. Euh, jox ko wallam te nag doo quitté présidence assemblée nationale pour ñu lay jox ay poste njalaxaan xam naa moo tax puisque Macky Sall xam na ni kii ku bëggee la ba ma ko fi joxee présidence assemblée nationale dafa jooy baal ma wut benn o tegal ko ko ci comme ça bu ko jotee mu kontaan ma noonu laa koy expliquer